ab alliance ngir jëriñ réew mi waaye pour renouvellement wu mandat kenn nit kese la gis na muy réew mi di demee fan yi surtout ci processus électoral bi ci gis yu yéeme yoo xam ne ku nekk war na ci am taxawaay bu leer ndax bu ñu seetaanee ñuy jënd ay électeurs comme ni ñuy jëndee bi processus électoral boo xam ne 1960 ba léegi ay jéego yu jëm kanam rek moo ci am mu dellu ginnaaw dellu ginnaaw bu metti ñun ñëpp xam nañu lu xew fan te dara waralu ko lu muy fexe pour APR des ci pouvoir bi gën a yàgg ñun nag lu mel noonu waruñu ku nekk am taxawaay bu leer naañ ndax ñun ñoo fi woote woon Dekkal Ngor ñoo fi woote woon la patrie avant le parti kon valeur yooyu nga xam ne moom moo taxoon ñu ànd ci politique moom moo taxoon ñu dugg ku nekk ci ñun war na sàmmoon sàmmoonteeg loolu sàmmoonteeg ngorom sàmmoonteeg dignitéem sàmmoonteeg euh, euh, dëgg te wax dëgg rek gis ni que opposition bi ci boppam liste am na ñu nekk ci seen i liste ci ay liste concurrente saa yu ne ñu gis ñu leen di roñal di leen doxal yóbbu feneen loolu ku nekk ci réew moo xam ne dañuy woote ngor ak dignité war na am taxawaay bu